mina seytaani rajim yi bisimilahi rahmaani rahim sant yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Mouhamed sant su a waaju sant su wasila Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen ziare te di leen daal ak yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen a baaxaw di jàkkaarloo Waarwi TV nekk alal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu ngi fii nag ci ci fii ci Touba. ñu ngi nekk na kër sëñ Abdou Sakor Fall sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Sakor Fall nekk caatum sëñ Abdou Sakor Fall ci addee ji nga xam ne da koy defal magam ju baax ji sëñ Fallu moom sëñ Abdou Sakor di ko ko jox at mu ne ci weeru koor tey jii nag di fukki fan ak benn ci weeru koor ñu koy wax kumtewaat ñu ngi fii ndax sëñ sëñ sëñ Moustapha boo ko gisee da xam ne jëf bi xam ne moo la bàyyam bu baax ba doon jëf maam ju baax ji doon ko jëf Cheikh Rafal boo dikkee da koy fekk fii ci mbaax ga ci yar ga ci yaatu ga li ñu gën a nekk Serigne Moustapha boo jàkkaarloog moom da nga koy ñemee ndax saa soo jàkkaarloog moom bañ bëgg a njëkk a gis reetaan gu neex ga ak mbaax ga ne ci moom Serigne Moustapha nag di kenn koo xam ne dafa bokk ci njaboot bi di kenn koo xam ne taxawaayam képp koo xam ne nekk nga fii ci Touba da nga ko xam ndax saa su ne jotaayu koor ak doxantu bi nga xam ne ndogu yi dañ koy def saa bu ñu day dem ci génn kër ci jàmbaar yi nga xam ne jàmbaar yi maam Cheikh Rafali la kii nag bokk ci biir jàmbaar yi muy sëñ Moustapha ñu koy ñaanal bu baax a baax yàlla may ko fan wu gudd lool ak wér danañ dugg ci biir woon leen waxtaan yi nga xam ne moom leen fay jëlee fa séenee ànd ak moom ci addee ji nga xam ne da ko yóbbu magam ju baax ja kon dañuy xam ne ñun li ñu war muy ndaw ñi roy ci njabootu Serigne Touba rawatina njabootu Cheikh Fall ci jëfe ndigal ak bàyyi ay tere kenn ku nekk ci yoonu murid li may wax rawatina Baye Fall mooy dañuy toppante ku ne kala mag na ko jox cër. ku nekk ki nga xam ne mooy sa waajur nga jox ko cëru waajur nan dellu siwaat xel yi te roy ci ñii ndax ñii saa suñ toogee ci seen jotaay dañuy am benn jàngat bu am solo boo xam ne dañ ko fay jële bu am solo boo xam bépp ndaw foo man di nekk ak Waarwi TV saa su ne bu ñu xëyee dañ leen toppandoo ci kër yëpp fii ne ñu ngi fii ci kër sëñ Moustapha ñu resee dugg ci biir woon leen sëñ bi ak adde ji nga xam ne koy jox bàyyi bu baax ba ci kaddu gi soxna jaara ci caméra bi sama càmmi ju baax ji saane ci réseau ba Serigne Bassirou ak seen Cheikh Sam ak seen ñëpp nga xam ne ñi ngi jàpp ci liggéey bi fii ne tey fi leen dikk ci Koumtawaat kër Sëñ Abdou Sakkoor fekk doomam caatam bu baax sëñ Moustapha Fall mu Sëñ Abdou Sakkoor kon saane nga topp kaddu yoo xam ne su yëkkati koo si rek la yëkkati ko muy kaddu yoo xam ni yu jafe la Abdou Sakkoor Gueye ci kër sëñ Abdou Sakor Fall ah jëmm ji rek moo jaral wax dara si rajo war si la nen léegi nag ci gàttal dama leen xamal ne jëmm ji di Cheikh Moustapha fa waajuram ba toll woon di Cheikh Abdou Sakor foofa la toll li mu toll foofu ci ay atam ak i waxtoom la waxoon ni doonuma Cheikh Ibra ndax ah, booba sëñ Modou Moustapha ngi fi ak sëñ Mor Talla ak sëñ Abdoulaye Fall Ndar ak sëñ Mbàkke Fall ak sëñ Basiru Fall mu ne doonu ko nag ñooñu ñoo doon Seex Ibra waaye man mii nag damaa doon Seex Ibra mboolem doomi Seex Ibra bàyyi Abdou Sakko lañu daan wax kenn mësu ko cee jàll sàllalu defuñu ko woon rek dañ koo defan bàyyi baay ndax daal du pire seen bàyyi bàyyi wu ca dara bi Seex Abdou Sakko jógee toll si ñaar fukki at fukki at ak juróom la Seex Ibra woo sëñ Mourou Moustapha ba mu ñëw mu ne ko ab taawa ngi nii boo xam ne foo jëmati takkal ko boo jiitoo mu topp ci yow euh, te booba manees na ne moo dem caatam daa nekk waaye sëñ Cheikh Ibrahima woo sëñ sëñ Modou Moussa ba mu ñëw mu ne ko boo takkatee takkalal Abdou Sakkoor ab taaw la ni yow foo taxaw mu taxaw fa bu Cheikh bu sëñ Modou Moussa takkee nit sama digg sëñ Abdou Sakkoor ba kenn dox sama diggante ak moom fas sëñ Abdou Sakor lay topp ci te fas sëñ Modou Moussa ñu rëppatal wuti fa ñu nekk jëmm jooja nag mooy kii doon nu Seex Ibra tax sëñ Fallou ngi fi sëñ Mourtala ngi fi man mii maa ngi fi ànd nag seen baay kon lu ma leen ci wax ngeen war koo gëm. dëgg noonu la demee defaat. doon nu sëñ Abdou Sakor yem ci da doon doon gi mu ko doon nag mooy jikko ji. ak fit ak fulla ji ak fayda ji ak jëmale ci yàlla ak jëmale ci yàlla ndax lu ngeen ko jox mu jox koy sëñ Fallu hmm. sëñ Fallu joxal ko ko xalifab sëñ Tuubaa bi fi nekk dëgg la loolu nag ci baayam la jëkkee ndax sa baayam sëñ Fallu Mbàkke nee na moo ma jëkkee jox million soxna Adama Fall moo yóbbu lettre ba bind ko foofu million bi def ci bokk ko adresse waaye mu ne ah million da jërul adresse dama jot yotal ma ko yotal ma ko sëñ Fallou rek toog ci géej gi sëñ Fallou te teyet leetar ba nii leen Abdou Sakko jëfi Abdou Sakko rek woo leen ma ko ñu ne ko fu mu nekk mu ne ma ñu ndi ko mu dànd ko meetar ni ko lii doon mu ne ko xanaa xayf ko rek moo tax ak ñuuma mu ne ko guleet kër Cheikh Ibrahima gépp yaa ci jëkk joxe million mooy jëmm ji ba may tax ànd ak moom boobu amagul ñaar fukki at ca la tàmbalee jox ay million ba bis nekk tey ji kon nag doon nut sëñ Abdou Sakkour da koo doon loolu laa leen ci mosal jërë ngeen jëf magam ju mu dawal wata jox la ko jébbal la ko kooku de buxantewut buxantewut ak magam de buxantewut de neen manub taalibe laa lépp lu ma am yéen ko moom oto bii ma yor sax bu leen neexee sax ngeen jël ko loolu day moom moo ko njëkk a def ci yoon wi ma dikk nag ne ko man day man ñeenaa ma dikk sëñ Fallou ñoom ak sëñ Moutalla ne dama leen a ñee ñu ne ma loonu ñee man ne man de samay rakk man man mayu ma fa may ko sama nàkk tollu maa aatandi ko de dañuy xëbante man asib de te suñ bi muy dem nee na ma sëñ bas dénk naan sama doom yi xajoo ci kenn yow neen na ngeen ko moytu de li mu yor da koo jege de loolu de wax na ko doog a dem man ko waaye maguma ci mu ne waaye yow yow yow la junne yi topp bu ëllëgee de sëñ bi nag nag nag nag nag leen yërëm ñeenti weer ci ginnaaw bi ma aaloo damaa dem suñu ak mbuur génn génn kër gi ndax booba yegg naa ci ko ma joxat bi nga faatu ci tàngoor wu ma tàngoon ba ma demee nag la ma waa Sandaga nag jañse nag na may ne ma bàyyi seex na amul ma ne lu tax ñu ne Sandaga nii ñu ko def ba njëge gi gedd na dem naa laaxira bu fekkoon ne yaay bàyyi seex na ndax daan dikk fii woo seexaw ba la wañ ne ko lu res naay togg nañ indi ma jënd ko murit yi lekk ko añee ko waa Sànq dajale ko fukki junni mu dem fa sëfoor say ndékkee marché Kermel jox ko fukki junni muy ñaar fukki junni ñaar fukki junni par jour te bàyyiwu fi benn tabax tabaxi ban la bàyyi njaarim ak Touba ñaar fukki junni par suur fukki fan yu nekk ñaata la weer wu nekk ñaata ñu ñëw ci sa yëpp sàkkoor benn bis loolu maa ko fekkee moom bisu kor yi boobam nawet la tombeel signal yu génn taxaw ci pénc bi daal ni Ibrahima Diop mu ne ko Mbàkke Fall mu ne ko demal demal soññ sëñ bi na wax daam kebe ne sëñ bi ne ko jekk nañ dem siyaara ji julli gi julli ji wuñ jot dañuy wër jumaa ji rek si kar si jolli ñëwaat sëñ bi Sakko daal ni tël génn déedéet yeex na loo yeex naa génn sëñ bi Sakko sëñ si àll yi taxaw na lu yàgg yàgg yàgg sëñ bi sëñ bi génn ba yàgg rek mu ne tël rek yor baat baaxoñ ji dong yi si ka topp ko ba siin sekk ak ñoom ñëpp moom day dox ñoom ñu daw te mënuñu koo jot sëñ àll yi di ko xool ba yàgg rek mu àgg suuf ne ah sëñ bi Sakko mi niru na sama baay àgg bàyyi sol lay daal dugg ci ndox mi yuuxu ñu ñu ñu koy ñu koy làmb bu nooyee rek mu bëx bëxi ñu koy seppi ko mu jën loolu def na ko fii ah sëñ Abdou Sakkoor mi ndir na sama baay dar bopp bi àgg suuf lu ñu di teewee naa ko fii ci pencam paale sama baay na maam moom ñëw mu ne ko yaay Seex Ibra baat di ngay def mu ne ko lu tax nga wax ko yaay Seex Ibra di ngay def te te yoon wi mu ne ko maa man ku njëkk man ku mujj tàng jër keroog nee ñu dafa doxi fii ba ba Daaru Faal yor jaas yi ci loolu teewee naa ko fii de oh. du moroomam góor de caat nag moo fi seexali magam keneen defaatu ko ci yoon wi du Tuubaa du njaarim du feneen waaw loolu de mën naa ko seere waaw ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax ci turu Cheikh Modou Moustapha Fall ibnu Cheikh Abdou Sakkour Fall maanaam da ngeen di ñëw tey jii fekk ñu barab boo xam ni Baye Fall yëpp fi teew di fa dajaloo ngeen fekk ñu ci jàmbaari Cheikh Abdou Sakkour Fall ji kii toog di caatum Cheikh di caatum Cheikh Abdou Sakkour Fall day jëmm joo xam ni maanaam bu ñu ñu teewee ci barabam fekk ñuy waxtaanee eh, Cheikh Ibra te muy jëmm joo xam ne kenn la ci kër Cheikh Ibra Fall kii toog am ni Moustapha mii kenn la ci kër Cheikh Ibra fi moom boo toogee ci wetam da ngay xam ne Cheikh Ibra sori na Sëriñ Abdou Sakar sori na moom ci boppam daa am jikkoy Cheikh Ibra jum yor ne ngir Cheikh bi mu ñëwee ci yoon wi di borom yoon wi jariñee ci yoon wi rek tax mu ñëw xàll yoon wi tax Cheikh Fall ñëw jamono jariñ bindee fi a tax maam Cheikh ñëw jamono maam Cheikh jariñ bindee fi rek tax mu ñëw jamono di abul ambiyawullahi bàyyi yonent yëpp di abul rijaalullahi di bàyyi góor ñëpp waaye moom nag bu ko Cheikh bu ko bu ko Cheikh Abdou Sakar juree te Sëriñ Abdou Sakar Fall waxoon ñëpp mag ñëpp ànd ak Cheikh ba ci sëñ Mor Ndiaye tomb deel waxoon na ni Cheikh Fall moo ko ne woon ci Abdou Sakkour lay mujj te moom du tu maam Mor Ndiaye tomb deel nee na Cheikh Ibrahima moo ko ne ci Abdou lay mujj moor yéen kat na ngeen ay sàkkkat ngeen kon sàkk leen ci Abdou bala moo dem mu ni waxi Cheikh Fall jooju lay topp ba tax mu ñëw jébbalu ci sëñ Fallou Fall mii di sëñ Abdou Sakkour maam Mor Ndiaye tomb deel ci moom la mujj jébbalu wax na ni wax na ni Cheikh Ibrahima Fall bu demoon ba jeex takk takk takk takk mu gisul daray Cheikh Fall nee na mu gis kër Cheikh Abdou Sakor am xëti nee na xëti moom ca lay jébbalu utal ko pepp utal ko ndox di saytu xatima te kooku kenn la ci magi Cheikh Fall yi kon doy na sëkk ñu xam doole Cheikh Abdou waaye doole Cheikh Abdou Sakor jooju ak doole Cheikh Fall jooju ñun ñi nga xam ne ay gone lañu xamuñu ko woon ay gone lañu xamuñu ko woon tabe googu Cheikh Ibra tabe woon xamuñu ko woon yaatu googu maam Cheikh Fall dañ koy dégg rek waaye caat mii bi mu ñëwee bi caat mii ñëwee ñun xam nañ kan mooy sëñ Sakor Fall xam nga lu mu fi nekkee kii ci paalin ku xiif mu jox la nga lekk saabu ak njàmpaleer di sang nit ñi yor am ndox di duy bagaan yi bañ fees barke moom Sëriñ Fall bari na ku ñàkk ci yoon wi guddi yi ñëw ci moom baax lool tabe lool mën ne muñ lool yaat lool xàmmewul ku jébul ci moom ak ku jébalul ci moom Modou Moussa Fallilou jëmmam ji toog ñëpp xam jëmmam ñëpp xam jëmmam ji wax naa ko ni ko maa ngi ko waxee mbuur ni ko bari na jaam ñu la topp waxuñu samay wax waaye war ñoo wax ni ma ko waxee bari na jaam ñu ko topp ñëpp intere rek li ëpp ci ay bindeef yu ko topp intere ngir moom doo jébbalu ci moom de waaye da ngay ñëw ci moom di root di yóbbu sax ci sa sëriñ barki Seex Ibra Faal say sas day manqué nga ñëw ci moom jëlee ko ci poosam bi mottale ko say sas dem ci sa sëriñ loolu Cheikh Moustapha Abdou Sakho rek koy def dara ji seen faal ci yoon wi xammee ku jébbal ci moom ak ku jébbal ci moom léegi ne dañoo tollu foofu yoon wi moo tollu ci nga topp sëriñ boo xam ne daa rafet jikko sëriñ bu rafet jikko sëriñ boo xam ne jikkoom dafa rafet sëriñ boo xam ne ak tedd ngeem ak mbaaxam da koo yaatal ku jëm ci Seera Fall mu dimbali la xalal la kooku mooy Moustapha Fall mi toog noo ngi ñaan ci dara jee Seera mu yàgg fi te wér te yàgg taxawe taxawee ndogu yii ñuy liggéeyal maam Seeraay ma Faal ndax ndogu yi kat maam Seeraay Faal dani doom ndogu yi may toggal sëñ Bàmba ku ma jox ab tànk ma ram askan ndeyam ak bàyyam bu di gétti maam ci sawara kon Seeraay Faal rek a mën a ñoo ngi ñaan maam Abdou Abdou Sakor Fall doom caata mi mu fi bàyyi ba ci sëñ Fallu Abdou ba ci Cheikh Mourtada ba ci sëñ Mamor ba ci sëñ ba ci Cheikh Moustapha Fall mii di caat yàlla na fi ñëpp yàgg barki maam Seeraay Faal la Bambour dina jaa ngeen jëf da moom laa gën a ndax euh, sëñ Moustapha waxuma baatin bi rek yem ci waxuma doon gi Seex Ibra rek yem ci njëriñul adduna li rek ñi ko ci topp ñi ko ci topp ñi ko topp rek ki njëriñul adduna rek tol nañu ni soof ndax sëñ Moustapha mii ci moom laa gisee mu boole ab law bi akub naar ab law be akub naar te ñooñu moom kon ku ne xam nañ seen intérêt leen tax a jóg law be baa ngi nii naar baa ngi nii <laughs> kon ñooñu moom intérêt leen tax a jóg nun nag danoo sëñ bañ ndax danoo fekk ñu jébbalun ñu jébbalun suñu waajur tudde nu si tudde leen suñu waajur kon nun ñoo alali Cheikh bi la noonu waaye nag am na nu fulla ju toll ni ki nuy jëriñ te du nu jariñoo rek yem ci itam danañ ànd ak moom moom mi ne damay jariñ njëriñ la kenn laa ko toppee fi mu toll. dégg nga sëñ Fallou nga ne ah, ca laa sukk jébbalu gisagu ma ba wooree ba tey gisagu ma <laughs> sëñ Mourtala gisagu ma <laughs> dégg nga ko kon nag intérêt bu ko kenn bañ moom lañ toppee sëñ Touba Cheikh Ibrahima moom la toppee woon sëñ kon nag loolu bu kenn bañ. Falloum sëñ Abdou Sakor ak sëñ Mourtala ñu ngi siyaare sëriñ Cheikh Jëmb mi buntu yoon wi ñu ngi siyaare sëriñ Cheikh Jëmb mi buntu yoon wi teg ci njaboot ak maam Cheikh Rahima Fall gépp di rafetlu sëñ Moustapha jataay bii mu def ndax day dundal yoon ndax amul ngul Cheikh la du diggam ak sëñ Issa nee na Isaa mu ne ko Mbàkke mu ne ko fa Kaaba ga nekk ba mu fa nekk ba mu fa nekkul xam ngeen lu fa nekkoon sëñ Isaa ne ko a ah, Faal man de xaw ma xaw ma xaw ma ko ndax mosuma dem sa Arabie Saoudite bay xam fa Kaaba ga nekk mu ne ko Isaa maag sama sëriñ bi yàgg nañ fa de am nañ fa ñetti junni at yonent bu ñëw ñaan nag moom bag ba yonentam jeex ñuy xaar Muhammadu Rasulullah ku baax ki wéeru ci sama peerub garab gi ma sopp garab ku baax ki wéeru ci Issa sama yel bi sewoon waaye yàgg naa dund de mu ne ko mbàkk mu ne ko faal jërëjëf ñun de mosunoo gi dem Arabie Saoudite bay xam fa Kaaba ga nekk ma ne ñetti junni am nañ ko fa maag sama sëriñ bi yonent bu ñëw ñaan nag moom ba yonentam jeex Issa mu ne ko mbàkk faal mu ne ko yàgg naa dund de daal di fa soxna sooda jenn jox ko suñ baara jenn ci ndigal suñ tuwaa moom fa naaru sooda moom fa benn képp naaru sooda ba bis penc naar yaasoor la ñuy dégg waaye ñu dégg keneen jenn Cheikh Ibra noonu lay def noonu lay def moom ci loolu lay def ci loolu lay dox kuñ ko tëkkalee la nga yor doon danañ ci bésub soq te doo ci man dara lan ne woon lan ne woon jenn jox na ko jox na ko naar yaasoor la ba bis penc naar yaasoor la ngay dégg dootoo fa dégg keneen loolu Cheikh Ibra ko def booy ba ñu topp ci naar yaasoor la sant baax nag sëñ sëñ sëñ Moustapha ndax man de ñeena ñeena ay magam man da samay rakk mayuñu ñu jàmm ba li ma jëndal oto kon nag moom bu seexalee rakk man ñee naa ko loolu nag daa ko baatal kaw de samay rakk man mayuñu ma jàmm dañu maa sëkkatal kon nag moom mi seexal ay magam ma jox leen i wata ñee naa ko lool de dikk naa ba dikk naa ba ci kanam ay rakkam dikk naa ba ci kanam ay magam ni ko ñee naa man samay rakk mayuñu ma jàmm dañu maa sëkkatal moo tax ñeenaa ñeenaa ay magam lool de. naa la jox oto baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ñoo ngi ñaan taxaw bi ak wér cër yi baax a baax. ñu siyaare mbokki taalibe bi yëpp tey eh, ñaan Serigne Fallou sëñ Abdou Sakor yàgg fi loolu tëwër ak sëñ Mourtala Fall ak sëñ Talla ak sëñ Aliou Fall ak sëñ Modou Moussa Fall mi nga xam ne mooy caat caat nag moom mu ne solo wax ci moom ndax daa mujjee nee ku mujjee lépp dangay jël lépp di joxe. te moom daa def loola maanaam mooy caatum sëñ Abdou Sakkoor waaye euh, mëneesu la wax daal ci man mënu maa wax ci moom ndax dama yàgg ànd ak moom ma gis lu muy jëf ndax ay jamono bi muy doog a jógee Mbay di ñëw ci kër gi jóge ca fa mu doon jànge fa mu doon wattoo alxuraan di ma fekk mbuur am na lu ma fa mas a wax boobaat ci liggéeyal sëñ bi rekk ko ñoroon mu nekk ci ba nëgëni booba Cheikh Ibra xam na ne dama ko daan fiire ak nit ñi ndax di ko nëbb nit ñi di ko nit ñi di songe ak ni muy ni muy ni muy dal ci moom ba mujj mën a ko sëñ bi maa mën a ko mën a sëñ bi ni la nit def moo ma jaaxal te wax dëgg yàlla man dama laa ñeewante waaye li li ma bëgg daal nga xam ko mooy lépp loo yor dee ko joxe rek ndax xam naa ne li ñëw ci yow àttanoo ko waaye Cheikh Ibra Fall àttan na lépp waaye yàlla def na sama kàddu googee daa mel ne daa mujj sax sëñ bi ni ma ko doon sonné rek daa mujj sax suma ma ñëwee daf may nëbbut day bëgg sax ma dem ba doo du ma nekk ak moom ndax booba eh, jamono jooju bokkul ak léegi booba at yi néew na waaye booba noonu la ko eh, noonu la ko taalibe yi di def di ko wut si te xam ne liggéey rek ko ñor waaye lu ko waay jox rek lu ko waay jox mu jox ko sëñ Fall loolu moom mën naa koo seere njabootu sëñ Abdou Sakor gépp na nga yëmalewu leen nag kenn lépp loo xamante ne bi ñëw na ci loxoom rek dina dem ci njabootu Cheikh Abdou Sakkour ñun nag amuñu lu dul Sëñ Abdou Sakkour Fall ak turu yàlla wi turu yàlla nag moom moom lan xam ci moom lañ nàmbutal te bu waxee diggante Touba Fall ak Daaru ak Touba gi turu yàlla rek lan lan lan lan nàmbutal ci lan xam ci la ñuy dund ci la dee ñoo ngi ciy ñaan nag waajur yi nga xam ñoo ñu njëkkoon ci turu yàlla ku mel la bàyyi mat Jóob si kar kat te wàcc bu yàggul yal na yàlla yokk ay leer ci àjjana yi Firdawsi ak mbooleem ku ko fa fekk kum fa fekk di ñaanal Baye Badara Combaan mu yàgg fi lool ak mbokki taalu taaliba yëpp ci doole Cheikh Ibrahima Fall noo ngi ñaan Serigne Cheikh Ndigal Fall it fi lool ndax moom dundal na yoonu maamam ni yaakaar naa ne li mu liggéey ci yoonu Cheikh Ibrahima Fall ah su maamam ñëwaatoon du defaru aw toogin waaye ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool ndax gis rek da nga xemam teef yoon ni te yoonu Sëñ Bamba Cheikh Fall noonu dong la war a doxe daa war a mel na jant koo gis xemmem teef ko ndax yoon la sëñ Cheikh doon wax naan yoon sëñ Bamba maay royukaay bi ku ma jéggi weesu digg bi kon mel na ne ku ciy dox kon ka ngay kay dox rek la ñuy xool fu mu ku bëgg a dem da ngay gis te kay dox nga ànd ak moom di dox ñun nag gis nañ sëñ Moustapha Fall ni muy doxee soññ ñu ñun taal bi nga xam ne nii dañuy danoo sóobu ci yoon wi te bëgg a dox ndax ni muy doxee du la bàyyi nga nga siggi bay bay bay jot a jot dox leen jërë ngeen jëf ñoo leen di siyaat sant bu baax nag ci doole Cheikh Ibra sant Serigne ak Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine di gërëm sunu bunt ci Cheikh Ibrahima Fall mu Sëñ Abdou Sakkoor Sëñ Abdou Sakkoor nag soo ko waxee tudd nga Sëñ Fallu Fall ak njabootu Sëñ Abdou Sakkoor gépp ngi leen di nuyu di leen siyaar di siyaar bokki taalibe yi fi teew yëpp ñu fi ñëw di taalibe di soppe di xarit ñu ngi leen di nuyu ju turu Sëriñ Fallu Fall di leen dalal di leen sargal ah jigéen yëgal nag kàddu yu tuuti kàddu yu mooy jëf ji sëñ bi duñu ko seereloo muy ndog yi muy yóbbu boole kook addi di ko jox sëñ Fallu moom sëñ bu Sakko lii nag sëriñ bi da ko da ko fekk mu di ko réel jëf nag sëñ Abdou Sakko dafa am lum ci wax sëñ Sakoor dafa wax sama baay mbaykan ne ko mbay mu ne ko faal mu ne ko man Abdou Sakoor day ku jëf benn dërëm ba mu leew la nga yëkkati ko teg ko ci sama loxo ngir jëmi yàlla fan jëm doo fa taseeg looy ragal loolu nag ah ñi ma ko déggee bariwul bëriwul Cheikh Fall jëf jël rek la wax lii sëñ bii def nag aw yoon la ciy wane ana yoon yu muy muy bépp taalibe la ciy soññi waaye nag rawat nag ñi yaakaar sëriñ Abdou góor góorgóorlu liggéey joxe loo am joxe ngir yàlla ak jëmmi sëñ Abdou Sakkoor sëñ Fall di danoo ànd ca daayira ba ca Ndakaaru mu wax ne ndigal lu jóge kër sëriñ Touba dugg si fii fi kër Seex Ibra li ngeen ci man lépp nangeen ngeen ko def la ngeen ci mënul nangeen ngeen ko jéem waaye ndigal lu tukkee fi man nag ñëw fi yéen lu ngeen ci man na ngeen ko def lu ngeen ci mënul na ngeen ko bax kon ñoo ngi soññ bokki taalibe yëpp nii ko siñ mu Fall defe nu góorgóorlu takk suñ ndigg te xam ne lu ci waay jëf ñàkkoo ko sa yëpp de man teew naa muy joxe ay tabaski joxe ñaar téeméeri xar am soxna su teg ab sëram ci boppam ñëw ne ko faal damay laaj si am tabaski mu ne ko diw mu wuyu mu ne ko war naa laa joxum tabaski de waaye lii fi indi lii fi ñëw de dañ ma koo jox rek di ma ko dénk te ndénkaan nag da koy def foo xam ne fii su la ko borom laajee ëllëg nga ne ko mi ngi nii moo tax lii ngeen di dénk sëñ Moussa de na ngeen xam ne sool na ko fi barab boo xam ne bii. yéen ñi ko jëf su ëllëgee su ngeen ko laajee mu jox leen ko loolu nag ku am kilifa gu mel noonu war ngeen a laxasawaat góorgóorluwaat takkaat seenug laxasaay li nu am lépp noo di ko ko jox ngir yàlla ak jëmmi sa jëm sa góor ndax fam nu koy defal ëllëg day fa ko soxlaa dana fa jafe lool te su te su boobaa su nu ko laajee danañ ci jot kon nan góorgóorlu te ñaan ci kat nu yàlla saa boroom def ci eh, sunuy poos lu nuy mën a joxe defal nu wér defal nu gudd fan ndax murit moom wér ak fan wu gudd ak yor rekk ko jig yàlla na nu ko sëriñ bi defal ba bu ëllëgee fa ñu baax ñi taxaw ñu taxaw fa ak ñoom ca góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax damaa dégg nag ci sëñ Moustapha mu ne sëñ am di xëdi nee na yoonu maam Cheikh Raye Fall wii tagu sëñ Tuubaa wi xal nañ ko ba mu leer nañ nooy na nepp jub na xoj sës na rek murit bu ci aw boo sooboo rek boo yéegul da ngaa nuxul waaye boo réeree da ngaa jàdd kon ko aw ci yoonu Cheikh Rafal wi te jëf da nga àgg fa jëm ñoo ngi ñaan nag ci kàttanug yàlla barke yonent bi barke sëñ Tuubaa barke Cheikh Rafal mi tax ngeen di jëf tax nuy jëf yàlla na nu ko sëñ bi dencal fu yàq yéegul te ya tam yàgg koo def nag ñun ñëpp sant nañ ci kër Cheikh Rafal gépp nag la ko jëfal rawatina kër Serigne sa Gueye jërë ngeen jëf yàlla na ko yàgg a jëf. ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen bal àq di am mbégte mu rëy nag ki jetaay bu tedd bii nga xamante ni seen borom xéwale noonu fekke ko ci jëmm jii nga xamante ni kenn na ci ñun koo xam ni fonk nañ ko fonk koo xam ni mënuñu ko wax sunu làmmiñ ngir ay mbir yu bari ndax moom. dafa doon maam Cheikh Rafal ci mbir yu bari mooy dara ñëru ko lu ak taalibe nangoo joxe alalam itam ngir yàlla nangoo joxe dara jaam ngir yàlla loole nag moo na may céet bi ci moom du ak mbokk tax a ñëw li nu ñëw mooy sëriñ bi rek nu ñor nañ ko ci moom ci lu wér ndax jëw nañu ji sëriñ Fallou Mbacke sëriñ Fallou Fall si ëpp Sakkoor mu wóor nañu kër gii cër bu am ci Cheikh Rafal fi ko am te fi ko teg. taalib yëpp mën a roy ci moom te maam a jànge ci moom mooy moo jàngal ñëpp ak taalib sëñ Moustapha mii nag loola day day aw doxinam jàpp naa ne bokk ak nit wajuru góor euh, ba noppi jàppe ko ni li nga wut ci sëñ Touba di ko wut ci maam Cheikh lépp ci moom la ne loolu ak fonkal mënu koo rees ñun ñi nga xamante ne ay taalibe lañ dong ci moom kenn ku nekk am na fu la teg foo xam ne kawe na ci yow kawe goo xam ne dangaa xam ne li ko ñor mooy sëriñ bi rek ko ñor loolee nag dañ koy ñaanal rek ak wajuram mu tedd waa nga xamante ne ñëpp xam na ni maam Cheikh Rafal la ci wér yàlla yàlla àggale yéeneem ci liggéey sëñ Tuubaa bi nga maam Cheikh Rafal li mu bëgg a def lépp mu def ko ni mu ko bëggee ñun ñi nga xam itam ñoo ngi ci ronam du ay taalibe nan roy ci moom te fas yéene góor góorlu xam ni kat li fi nekkoon démb ak tey day day gën a yokk waaye du dellu ginaaw mukk ndax mbirum sëñ Tuubaa maam Cheikh moom tànk kanam la am waaye te amul tànk ginnaaw kenn ku nekk li ngay wut ci kër gi la koy may mooy comme sa pastéef ni mu toll noonu la sa ndimbal di lu sa pës yëpp rek sa ndimbal dana toll fii nu toll nag jamono leer na lépp ndax kat ay at yu néew ci ginnaaw boo tuddee nit ñu jël maam Cheikh Ibra tefeet ga waaye ñëpp xam na ni sëñ Touba Cheikh Ibra Fall rek keneen ku mën a doon da ngay tàng ci seen biir waaye ku roy Cheikh Ibra ngay roy te loo am ci sëñ Touba Cheikh Ibra Fall la ko may kon ndokk bi nu yàlla nangu la loolu ñuy ñaan ci barkeb sëñ Touba barkeb Cheikh maam Cheikh Ibra Fall képp koo xam ne yaa ngi wut ci kër gii yal na ko yàlla wërsëgale suñu tànk yii di bu tey bii yal na doon yokk ci nun waaye yal na doon yokk ci jullit yëpp rawatina taalibi sëñ Tuubaa yi noo ngi sant ñëpp di gërëm di jéggulu ndax kàddu yi diis na lool fi ñu koy waxee moo tax waaye nag suñ xol sedd na lool suñ yaakaar dolliku na ndax buñ ci amul woon dara duñ ci bokk kon buñ ci yàlla boolee sant nañ ci bu baax mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi sant yàlla ci alayhi salaatu wasalaam di sant suñu yaakaar te yàlla Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak moom Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin di ñaanal suñu Muntaxa suñ borom yàggal ko loolu tamit noonu lañ koy ñaanale Serigne Cheikh Jëmm Fall xalif général de Baye Fall moom suñ borom yàlla ko fi yàlla ko wér di ko ñaanal njaboot Serigne Touba Xaadimu Rasuul yëpp ak jullit ci àdduna bi yëpp rek yàlla na yàlla def jàmm ci àdduna bi noonu lañ koy ñaanal tam njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridina yëpp bàyyiñ kenn di tamit ki nga xam si mooy suñu sëriñ di sëriñ Fall Fall mi xalifa Cheikh Abdou Sakor Fall ak mboolem njabootu Serigne Sakor Fall bu jigéen gi yëpp rek ak li ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Mourtala ba ci Cheikh Mourtala ba ci Seydina Aliou kon ñu ngi nii ñëpp tey siyaare ñëpp di balaax ñëpp tey balaax ñëpp di sant bu baax nag di wax alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla mi nga xam ne si lépp mooma yàlla mi ñu dimbali may ñu tal ak fekke bañ mën a tal dara ba mën a jëf dara te jëf joojee ak loole lépp rek ñu ngi koy ànd ak jullit yëpp di ko ànd ak mbokki taalibe bi yëpp ak seen pas-pas loolu mooy li nga xam si tey moo ñu bàyyi fii kon ñu sant yàlla bu baax a baax di ñaan ñoom ñi nga xam si ñoo ko fi indi yàlla dimbali ñu ban yàgg ko fee indi yàgg na ko fee fekk te euh, lépp rek mu nekk aw yiw te suñu borom nangu na ko te lépp ànd ko taalibe bi. Euh, mu mel ni Fall comme ni ko soxna si wàllaaje euh, ci lañuy ñu baamuwaat maay mbirum adde ji nga xam ne yaa ngi koy yóbbu di ko jox sëñ Fallou. Mm-hmm. ak taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci jàpp di ci dox. Mm. maanaam loolu la bëgg nga gën koo soññ ci taalibe yi. Mm. ak it xamal leen doxin yi ndax yoonu Baye Fall daa am nu muy doxee. Mm. te yaakaar naa ne dara gënu cee ñor maanaam weeru koor. dara gënu cee maanaam taxaw ci loo xamante ni daal farat la ci weeru koor wi. kon loo ciy soññ mbokki taalibe yi. waaw addiya moom dafa doon loo xam ne euh, moo war ab murit ndax euh, Cheikh Modou Bassir Mbacke dafa wax ne Cheikh Ibra Fall murid bu njëkk ba la wax ka njëkk doon murid ba ko kenn doon a gudd mm-hmm. wax na ma ci làmmiñu boppam ne ma keroog ba ma jaayante laa ko wax dama ne ko maa ngi jébbalu ci yow di jaayante yow di fasante yow kóllëre jébbalu nag ku ne aslam nafsi ku ne xam na ne bakkan moo koy def mm-hmm. euh, jaayante alal la koy def kóllëre ginnaaw lay féete moo bi mu ko gisatul mu ni ko si Moussa ko waxee mu daal di ngooy ca Moustapha ngir xam ne yor na Moustapha mag ñëpp dem moom mu ne fa ma mosatu xokk yox yoxi loolu kon mooy kóllëre mhm. euh, jaayante rek euh, la nga am te nga def ndax nit mënut a jaayante lu amut euh, mu jël mu jël léppam rek alalam ak njabootam ak ak ak lépp li ànd ak moom rek jaayante ko ak sëriñ bi kon loolu moo moo sos moo sos ndax na ko sëriñ Musaa Ka ci marché bi ni ko yaa jëkk jébbale sa xol mhm. ndax kon nga ñi lay setal ñi lay waaw ah, yaa xam sëriñ bi yaa xer yaa ngir mi ñu doxe kon euh, Cheikh Ibra addiya mooy li war murit bi euh, ñun nag li ñu yëg ci addiya mooy euh, sëriñ Saliou yàgg na ko wax te muy wax sëriñ tubaa mu ne day fekk fu fu fu dara def fa fekk fu fu fu bari mu barkeelal ko ah, fekk lu néew mu mu bari la kon yett yooyu lu ci ne addiya da koy def ñun nag euh, ci loolu la ñu xeeñtu rek tànk yoon yi nekk moo tax bépp taali boo xam ne dañu ànd yow ci loolu lañ lay xiirtal moo tax daanaka yoon yi da yoon boo xam ne du yoon ragal waaw ndax maam Cheikh Fall daana wax naan euh, képp ku la ku joxe rek moo la man soo ko tooñee mu dumal ndax da lépp fit ndax joxe fitu koy def waaw ndax Mamour Bangar wax na ma ne dépasse këram te bala ko daan joxe daana xaar ba euh, danaa nañ xaar lu ñëw mën a yóbbul ko Sëñ Bàmba bañ toogee ba waxtu wi nga xam ne ci la saxaar gi ñëw mu ne bu saxaar gi ñëwee eh, gan ñi ñëw ci lañ jëlee dépasse bu ñu dépassoo kon addiya lu fi yàgg la mooy yoon wi waaw te yoonu moom eh, mooy addiya jëf ndax dane maag Sëñ Bamba dana ñëw ngir génne si naafiqi lislaam mhm. ñu ne ko faal noo leen di génne mu ne naafiq dana julli mhm. ñu ne waaw ñu ne dana woor mu ne waaw mu ne ñu ne mu ne waaw mu ne eh, naafiq du du du jéblu du déglu ndigal du bàyyi tere du jël àllam di ko joxe te yàlla ci yoon yàlla te yàlla tax nit ki mën naa def lu ne waaye jël sa alal nee na képp koo gis mu di ko jël di ko def ci yoon yàlla te yàlla tax nee na koo génn ci naafiq ndax alal daa sax ci ab xol kon loolu la ñu nampatal ci ci addiye taalibe yi nag yëguñu jamono ji métti yëguñu ko waaw li ñu yëg mooy bëggu sëñ bi la ñu yëg ndax man eh, dama naan saa su ndigal ñëwee man damay sant yàlla bu baax a baax ndax ndigal lii eh, ndigal kenn ko jox sa bopp waaye ku ne sañ naa sasu ndax eh, at mi ñu ko jëkkee yóbbu jamono yi sëñ Saliou la Euh, booba koor gi des na juróom fan sëñ bi woote sëñ Fall Fall mi yàlla na fi yàgg lu tëwér mu woote daan ne damaa bëgg ren ngeen gën a góorgóorlu ñëpp góorgóorlu ci koor gi ma ne ko ma ne sosoon naa million te boobu juróomi dërëm moo nekk ñaar fukki dërëm koor gi juróomi a ne ko li tax ma sosoo ko mooy damaa xam ne li may dikkal yaatu na te nit ñi dañ koy rocc dem dikk rek te loolu am na lu ci farata am na ci loo xam du farata ndax tam moom bu la ko yàlla natoo doo xàmmee farata ak sunna da ngay kii noonu rek te te li tax nag li tax euh, ñii ñii taalibe yi di ñu ko jox mooy bëgg ñu defee leen ko ci yoon yàlla dimbali nag yoon yàlla waaye nag yoon yi dafa am yoon wax moo gën yoon yëpp mu yoon yi ñu maam serafal xalal muy addiya ndax addiya dara dara toll ni moom ndax sëñ Sakkoor addiya ju ko ma saan jox bu dee kii du mage da koy denc ne lii de doomi sëñ Bàmba rek moo ci jekk ñoom laa ko yóbbul bu dee yëre bu rafet noonu lu mën doon lu rafet lu jekk mu ne sëñ Bàmba addiya moom loolu la ci xamoon waaw ba ji am na jamono euh, am na bis mu jógee Daaru Fall di ñëw Touba fekk mu dajale addi ji jëme jë ko ci jëmale dañ ko indi sëñ Fallou jamono boobu bi mu ñëwee mu yem ci sëñ Saliou euh, daal di sukk àgg jox ko addi ji sëñ Saliou ni ko foo jëmoon mu ne ko ci yow mu ne ko lii ko ko doon jox mu ne ko yow laa ko doon yit mu ne ko tàllal sa loxo ma ñaan la mu daal di delluwaat daal di wutiwaat addi ji mu dajale ngir indilaat ko sëñ Fallou mm-hmm. nga xam ne xamewul woon doomi sëñ Bamba yi kenn comme jamono sa ci rek sëñ Tuubaa la lay jàppe waaw loolu lu yàgg la euh, am na bis euh, mu mu am addi joo xam da def ci amblon di nga di ko yóbbul Sëñ mu demee ba jumaa ji eh, mu mu toog foofu di ablu bindukaay ba mu ba bindukaay bi eh, ki ko yónni kooku kooku doomam la ndax doom Sëriñ Asan la bi bi soxna si ñëwee di soxna Adama di waajur Sëñ Xabaan yàlla na fi loolu te mu mu ñëw mu jël bindukaay bi ba ba teg ci amblon bay bay waaj bind ba mu yàgg mu ne ah million rek jërul bind de pël Fuuta bi xam ne li may bëgg wax sëñ Fall lay pël Fuuta bi ndax xeesaay bi xam ne li may bëgg wax mi war jëru bind léegi ñu fi nekkoon daal dar seen gim daan ah jamono ji naqar yi moom ko ci wax waxi million ak kii ak yére mi sol suuf si mu toog di wax waxi million euh, bi mu ñëwee ne ko saa euh, euh, moo doon moo doon nuyoo mu mu nekk si bi mu egsee jël addi jox ko ba noppi bi ma nee ginnaaw sëñ Fall di dem sëñ Fall am na ci kenn ci bëkk néegi comme comme comme euh, fekk sëñ bi dafa def tànk ne di dem naa xaw tàng mu daal bi tax daal la ñu soloon daane ko dafal ma euh, ab sàkkoor mais mu sol mu sol daal yi ndax naa ju tàng bi mu ñëwee sëñ bi daawul gees moom bu daan dox daawul gees ñii xam nañ ko sëñ sàkkoor daawul def nii ñuy def moom bu daan dox bu bëggee gis la ci ginnaaw day jékki-jékki rek mel na ko wëlbatiku day wëlbatiku jàkkaarloog foofu la daan doxee euh, mu ne ko kookan la sëñ taxaw gëstuwul sax mu ne ko kookan mu ne ko mën la diw mu ne ko euh, lu mu doon mu ne ko sëñ Fallou la joxoon daal yi nga sol ko mu ne ko man dama sol daal yi sëñ Bamba euh, daal di am lu mu ko lu mu ko lu mu ko wolofal euh, waaw sëñ fi mu toog dafa nekk di di di ree bay sëqat daal ni moom di daa daa fekk fa saa bàyyi seexiru sumiku rek fa fa mu sumiku mu ne ko dara sol boobu fa dara kon kooku mooy sëñ Abdou Sakor ñaan suñ borom yàlla ñu ko yàlla fayal amiin waaw di ñaan suñ borom mu yàggal fi njabootam gi ak taalibe yi ak jullit yëpp yal na yàlla def jàmm ci adduna bi um, te nag sant yàlla ndax dama leen wax ne Touba ak senegal ak l'islam li ñu am yàlla nañu yàlla dimbali ñu am uh, ak teewlu ba xam ko ndax li am kenn amu ko kenn amut liñ am waaw nit ñu baax ñu yowoo ci réew mii ak taalibe yi nga xam si murid yii ak Baye Fall yii kenn amu leen Serigne Touba li am uh, jox ko maam Cheikh Ibra Fall ñu di ko sàmmal kon kon nañ leen gën a góorgóorluwaat baax a baax te góorgóorlu ci jub góorgóorlu ci yoon bi nga xam si mooy yoonu siraatul mustaqim daa koy njërë ngeen jëf loolu daal mooy li nga xam moom lañ ci doon wax dama àjjana mi xamee gis yàlla ko tax jërëjëf dafa doon lu rëy ci man lu ma soññ te bañ waxtu wi mu ñëwoon naa fi yow. wax la sama yëg-yëg. ci kër gii. ak ci maam Cheikh Ibra Fall. bi ma jógee ba jàll sëñ Moutala jàll ci sëñ Moustapha mii. moom waxaatal boppam ne ma bëgg naa nga fekk si bis bi. jàpp naa ne ci sama adduna benn bis bu ko gën a rëy ci man awuma ko. ndax dama la maa ngi siyaare Daaru Xuddoos. yàlla defal leen dimbali leen ma am naa fa cër. ndax sëñ Mbàkke Mouhamed. adduna sépp xam na ko. te yaakaar naa ne am na lu ma amoon ci moom xam nga ko mm-hmm. sëñ Moustapha Mouhamed mii tey néew mm-hmm. na fu muy dem fenn mm-hmm. lu Europe di sori sori ceeb du fexe ma fekke ko waaye loolu lépp la ma xam la ma ko may man lu ma am ci Cheikh Ibra Fall laa ko yaakaar naa ni lu waay am ci sëñ la ko may ah, ah, waaye Cheikh Abdou Sakkour nag nun day sunu walla ndax yaakaar naa ni yow mii sa jëmm ji doy na sëkk ab cër ci sëñ ci sëñ Cheikh Ibra kon nag yàlla bi def sëñ Moustapha dem defaan mayan ma ci boppam lu tol ni ni man kat yaay sama président d'honneur yaay sama euh, invité d'honneur mm-hmm. ma ñëwaat maanaam fi ni nii li waxtu mbooloo mi xat-xat saa bu geesu séenu mm-hmm. damay xëccaat ne ma jege ko mm-hmm. loolu lépp daal réyaat ci man rëy goo xam ne moo ko waxul rek dama as gor waaye lépp dama koy sant yàlla te ñaanal te leen di ñaanal parce que sa liggéey Cheikh Rafal yàlla na ngeen ko àggale njaboot gi ànd ak yéen itam di ay taalibe ci pas-pas bu wér ndax lii pas-pas rek ko mën a def jamono am na ak woolu leen moo tax mm. li am mm. Mm. ñaanal leen ci barkeb Cheikh Ibra Fall milliards yi na ñëw ñu liggéey Sëñ Touba wóor na ma ni moom ngëm gi am na xam na ne Sëñ Touba rek fi ne ak Cheikh Ibra kon liggéey doo nga fi des noo ngi sàkku te te wóor na yow loo ñaan yàlla dina ko def yaay Sëriñ Fallu yaay si ëpp sa kóor a xam na xam na li xam na li ne ci yow sant nañ bu baax jërëjëf Fall jërëjëf asalaamaaleykum sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum nuyu bokki taalibe yëpp sëriñ bi nee na mi ngi nuyu bokki taalibe yëpp di nuyu bokki dëkkandoo nee na di nuyu bokki dëkkandoo yi nuyu yëpp. nee na di nuyu kóllëre yëpp. ñi teew ak ñi teewul. nee na ñi teew ak ñi teewul. di nuyu bokk waa kër njabootu Serigne Sakor Fall gi nee na nag di nuyu njabootu waa kër Cheikh Sakor Fall gi yëpp. nee na góor ñi ak jigéen ñi. ak mag ñi. nee na ak mag ñi. di jottaliwaat. na nag moom mu ngi jottaliwaat. ah boo ko déggee jottaliwaat amoon am la amaat la. nee na jottali moom boo ko déggee lu amoon la amaat amaat mooy jottali. jottaliwaat. ci sunu rak. nee na ci rakam. ah di caatum Sëñ nee na caatum Cheikh Abdou Sakor Fall. ah ci jëf ji nga xam ne moom la jëf. nee na ci jëf ji nga xam ne moom la jëf. te koo jëf. nee na te yàgg koo jëf nag. ci fu ne nag. nee na ci fu ne nag. ca tool yaag. nee na ca tool yaag. tuubaag. nee na ci tuubaag. ci nee na ci bitim réew ak. fépp fu dem rek. nee na fépp fu dem rek. ma nga fa jëmal Sëñ Sakor Fall. nee na ma nga fay jëmal Cheikh Abdou Sakor Fall. nee na ndax kat ñoom nee nañ amul lu may Seex Sakkoor Fall. nee na buy wax ci moom lay wax. nee na ci lay tàmbalee. nee na ci moom rek lay yem. nee na lu ñu amit moom rek moo leen ko may. te nee na nag mooy buntu Seex Sakkoor Fall. nee na moom mii Seex Moustapha. nee na leen ciy liggéeyal. liggéey bu rëy. nee na ci njaboot gi ci kër gi nag la koy tàmbalee. nee na ak doom yi. ak taalibe yi. ak rakk yi. ak rakk yi. ci ñi ko mag ak ñi mag. ci ko mag ak ñi nga xam ne moom moo leen mag. lim ci war yëpp nee na liñ ci war lépp moom mi ko ci def moom Cheikh Moustapha. lépp lu ñuy liggéey na ci kër Serigne Touba gii. nee na lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey ci kër Serigne Touba gii. lam ca war lañ ca war def yëpp moo lam la ko ca war. nee na a def lépp ma ngi cay boole la ko ca war. ak la ma ca war. ak moom mii la ko ci war nee na lépp mu defal ko ko sëriñ bi nee na mi ngi koy sant di ko gërëm bu baax nee di ñaan nag yàlla yàggal ko fi nee na mu gudd fan te am xéewal te wér nee na ba naal yi nga xam ne moom lay liggéey ci kër sëriñ Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall nee na boromam àggaleel ko ko bu baax a baax a baax. nee na te fulal ko ko nag. fu mu bëgg àgg mu àgg fa. nee ba fu bëgg àgg àgg fa. ci xéewal. nee na ci ay xéewal. aku yiw aku yiw. ak eh, ak njabootam gi bokkal ñëpp nag sëñ bi. nee na ak njaboot gi xam ne moom la bokkal sëriñ bi nag. muy taalibe yi nee na muy taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ko topp. ak yeeg. nee na ak xarit yi. nee na ak kóllëre yi. ndax nee na fii kat ñoom dong ñoo fi daje. nee na yi ñoo fi nekk. nee na ak xarit yi ak kóllëre yi nee na te lépp nag dara génnu ci Serigne Touba ak maam Cheikh Rahima Fall nee na sëñ Cheikh Ndiaye mii wax na ko léegi nee na Baye Sakkoor Gueye mii ah, nee na di magum taalibe ci kër gi. Ah, ñi fi mag ñëpp ñu ngi taxaw nii. nee na mag ñi ñëpp nag ñu ngi nii taxaw nii tey. di seere nee na di seere jëfi Cheikh Moustapha ji. xamoon Sëñ Sakkoor bu yàgg nag. nee na xamoon nag Cheikh Sakkoor bu yàgg nag. Ah, am ngërëmal Sëñ Sakkoor mu tarbiye leen. nee na ñu am ngërëmal Cheikh Sakkoor mu tarbiye leen. kon loolu caaxaan taxu leen a nee na kon nag mag ñi nañ xam ne caaxaan taxu leen a jóg. bu teew fii. nee na bu ñëwee teew fii. xam pasteefu Cheikh Moustapha. nee na xam pasteefu Cheikh seex mu taxawaayam. ak taxawaayam. ak bëgg yoon wi bëgg kër baayam. ak bëgg yoon wi ak bëgg kër baayam. nee na kër baayam nag mooy kër maamam ndax nee na Cheikh Sakkoor kët mooy maam Cheikh Ibrahima Fall nee na loolu nag bu ko dee suuxat nee na kon kat ñoom ñëpp la ko defal nee na yoon wi yëpp nag la ko defal ndax nee na yoon wi kat lii la baaxoo nee na tey lii képp koo gis sa xol dina sedd te bokk ci yoonu murit nee na rawati nag ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ndax nee na kat kër maam Cheikh Ibrahima Fall jëf rek lan xam. nee na buñ gisee kuy jëf ah, nee na ñoom ñëpp ñooy ñaanal Cheikh Moustapha tey moom ndax lii kat nee na mooy doxal yoon wi nee na bu ko neexoon nag mu def ko ci poosam waaye ndax nag ñoom kat ñoo ci bokk yem képp waaye nee na yoon wi nag nee na képp koo xam ne yombalal na la ko moo la ko xañ nee na liggéey rek mooy tax a jariñu nee na loo liggéey yaa ko moom nee na kenn moomu ko nee na kenn nit mënu koo nangu nee na kenn nit mënu koo yàqit nee na la nee na maam Cheikh Ibrahima Fall kat ci loolu la rawe ñëpp nee na kon nag nee na lii jëf ji yàlla na ko suñu borom jàppale ci loolu nee na te fulal ko ko mu yàgg koo man nee na mu yàgg fi nag ak i magam lool nee na ba liñ yéene ci kër Cheikh Sakkoor ñu man ko nee na jërë ngeen jëf nee moom mii kat di sëñ Fallou nee moom kat liggéeyul dara nee na lu ñëw danaa leen mi ngi noonu ñu def lépp ah, kon nag nee na moom sant na leen bu baax nee na ci kanamu Cheikh Sakor Fall nag jërë ngeen jëf jërëjëf Fall ñu ñaan Serigne Fall mu yàgg fi loolu te wér ñaanal ko mu Moustapha Fall mii di rakam ci jëf ju rëy jii mu wax te maam Cheikh Rahima Fall kat waxoon ko mag ña ndax dañoo wax ne ku ñu wax bay Mor Bey dañoo bay nee na gerte nee na mu doon téeméeri bërigo ak fanweer bàyyi na béy moo ma ko nettali fii ci mbaar mi di doomi bàyyi moor béy ma nga nekk ci daara yi foofu la nekkoon nee na mu jaay ko ñu yóbbu ko njaareem ci kër maam Cheikh Rahima Fall nee na mu tëj leen ci benn magasin moo ki ko yóbbu woon nee na daan ne leen dongab tarbiya day lekk ba suur bu jóge yàlla soppi ko ak leer nee na fa la leen tëj tëjaay bu yàgg nee na ba mu yàgg mu ubbi am kum jillanteel mu yor café ñaari kaas café nee na dañoo lekk ba baa xam ne seen biir yi attantuñ ko nee na ba mu ko xellee jox leen ñu naan neena na mu ne mën ngeen a ñëw delluwaat doom ca daara ja daan ne doom dongab daara day lekk ba mu suur ba suur bu jógee yàlla soppi ko ak leer kon nag nañu ñaanal suñu kilifa yi li suñu sang yi Cheikh Mamadou Moustapha li sëñ Fall wax rek moom rek lay jëfee nee na ak jàmm jërë ngeen jëf sëñ Moustapha góor dëgg jëfati allo